waaw euh, waaw report élection ñun ñun nag euh, comme ay observateur lañu et comme société civile lañu euh, comme ay républicain lañu bu suñu li ñu jàpp ñun mooy war nañu mën a respecter calendrier républicain bi te li des pour ñu àgg ci élection yi maanaam onze mois onze mois yi mën nañ ci am ñeenti weer bu juróomi weer wu dialogue pour am Euh, accord ci point yi nga xam ne point de divergence yi ba nga xam ne dañuy mën dem ci élection yi ci jàmm ak salaam euh, moo tax jàpp nañ ne ñun de fu mu nekk nii ànduñu ak reportu élection yi dañu bëgg ñu respecter calendrier républicain bi. alors ñetteelu mandat bi euh, xam nga ñetteelu mandat di ñuy wax troisième mandat troisième mandat bi xam ngeen loolu moom question bu ñu ma posé la directement. troisième mandat bi man wax naa ci ba noppi wax naa ci defe naa ne ñëpp euh, am nañu sama position bi ma ci jëkkee wax troisième mandat dama doon artu dama doon artu ndax euh, euh, gouvernement bi ak yenn ministres yi dañ doon wax ne verrouillé nañu disposition bi dis article vingt nañ ko ba nga xam ne kenn du mën a Euh, def lu ëpp ñaari mandat ci jamono jooju dem nañ doon wax ne verrouillé ngeen ngaa waaye mën ngeen gën a verrouillé ba sécurité juridique bi gën a yokk ah te ni ngeen koy defee mooy ngeen yokk rek disposition transitoire bu ko defee dootul amati benn sikki sàkk malheureusement dégluwuñ moon bali xew jamono ji xew Euh, werante bi am werante bii nag laa doon bañ waaye nag dégg ngeen ma ci fan yële passé ci benn symposium moo wax sama position man li ma xalaat man te li ma xalaat mooy ne euh, euh, président Macky Sall mu ngi def deuxième et dernier mandat mandat bi le 2024 buñ ci buñ ci àggee jàpp naa ne fa la fa la ñaari mandat am di jeex donc euh, jàpp naa ne euh, position bi may bii may wax bi ma bii may jël ci fan yi fan yële ñu génn mooy sama position maanaam mënatul def beneen mandat